monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye préparation campagne porte à porte oui préparation campagne présidentielle derrière président Amadou Ba en proximité en vélo si biir marché bi nii ah oui lépp loo gis si àdduna dañ koy waajal instant il y a une campagne bi ah waxtaan ak askan bi moom mu jël véloom dugg si biir marché bi fas yéene waxtaan ak population ci jëm lu jëm ci dëkk bi li jëm ci candidat am 5e président Amadou Ba li mu wara ñëw égalé pétrole ak gaz bi wara ñëw nek mu war ñëw ñu am si moom yaakaar président Amadou Ba monsieur le ministre papa Amadou ndjay moom mom tambalé na waw néna mbir so ci dugg ku la ko yombalal mo la ko xañ kon donc da ci dugg fas yéene préparé wu jatu population il est en proximité il est en vélo aussi